ci benn tàkkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena l'arène yëngooti na. ami téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers Equivox TV nuyu nañ leen di leen jaajëfal di amati nag mbégte rek di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk leen wax dal leen ak jàmm ci seen journal de l'arène comme niñ koy baaxoo di defee rek tey ci euh, àllarba bi ma leen di dalalaat à chaque fois rek lépp loo xam ne rek dafa ñëw rek ci làmb ji dinañ toog fii daal di ko faram-fàccee waxtaanee ko waaye à chaque fois rek euh, nii lay demee dama ci ànd ak ki nga xam ne moo di Babacar sama sama góor ah. maa ngi lay fay waaw sama. maa ngi rafet na de. merci beaucoup merci bii bees la wala. <laughs> bii waaw bii day mën naa ne bees la mën naa ne yàggu yaa parce que bon. Mm. macha allah xam naa ne qualité bi mu doon moo tax saa yoo ko solo rek moo tax muy gën a bees muy a bees noonu la maa ngi lay bëgg bu baax a mhm. baax nuyoo téléspectateur yi nga xam ne ñu ngi suivre ci Equivox TV yëpp fu ñu mën a mhm. nekk rek te mhm. leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom yow tamit macha allah ñu fu jigéen tey xaw a tagal musóoru da ciy baax looloo <laughs> am na solo à la noonu la voilà bu baaxee jërëm seetaane revue bi daal di dellusiwaat asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah mercredi 28 avril 2021 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko. yëglikaay bi di suñu làmb nag moom tey bu maanaam boo xëyee daal wala fi mu xëy ñëw tey ci ay dati combat yoo xam ne fi mu nekk nii nag leer na naññi léegi nag régulariser nañ ko démb fa nga xam ne ni moom moo doon ca CNG ba yëglikaay bi jëkk ñu caa jukkil Bombardier ak Balla gay numéro 2 mel ni ki nag boobu combat fi mu nekk nii daal léegi officiel na leer na nañ yëglikaay bi xam nañu daal le 31 juillet incha allah rabbi la ñu fas yéene bu soufflé booba combat Balla ak Bombardier bëre rakki Balla di Sa tamit combat ak Moussa tamit mel ni booba combat tamit date ba leer na 26 juin daal la ñu fas yéenee bëre ñu ne déet na waay Gris ak Abdou Diouf tamit boobu combat le 4 juillet lañ ko fas yéenee jongante la ka fa jaar mooy jéey seen beneen combat boo xam ne tamit ka fa jaar mooy Xaadim Samb mi nga xam ne ni moom mooy solence bu mag bi nekk ci réew mi wala boog Gris bu mag a mag bi nekk ci réew mi moom combat bu mu tëgg mooy diggante kéwél bu bawal ak nga xam ne nii moom moo di ñàkk jariñu booba tamit ab datam leer na maanaam le 7 juillet daal lañ ko fas yéenee bëre yëglikaay bi di suñ làmb ba tey moo xëy ñëw tey dina wax lu mel ne noonu keneen koo xam ne ni moom la muy def doon taamugul dat tamit mu ngay tëgg ay kombaam di dem wala muy fisale di continuer muy moo get moo nag daal ginnaaw combat yu neex yi mu fi taxawal barki dem ñu yaakaar ne fa la ñuy yem tey bi mu xëytee la mu ëndeeti beneen combat ama neex sek mu tëngéej ak ka nga xam ne nii mooy lacrosse mu faas revanche ba daal moo gét tëgg na ko taxawal na combat revanche booba daal yëg li kabiri suñu làmb ba tey ñëw na xëy nu wax nu lu mel ne ki noonu beneen combat boo xam ne tamit am na ab date jàppal yëglikaay bi mu ngi ñuy xamal ca sene daal diggante daam seen ak Ndandi Fall le 5 juin daal samedi lay tombeel boobu combat moom tamit léegi leer na naññ kon daal fi mu nekk ni combat ya ñu ngay commencé di ay date mel ni ki démb nag ma fa nga xam ne moo doon te ministère des sports moom promoteur yi ak ministre ba daje woon nan fa la bokkoon ca ndaje ma nag wala lañ fa gënoon doon waxtaane na ci ni daal loo ci a dégg daal mujj nañ waxtaan daal ba daa mel ni déggoo nañ waaye daa mel ni Matar Ba moom la mu def mooy delloowaat leen fa nga xam ne ni ñoom ñooy CNC ba nga xam ne ñoom ñooy yara làmb ja ka wax loolu nag moom mooy Boubacar Niang ma yoroon démb sañ wax ga maanaam porte parole ba la moo xam ne daal ne na waxtaan nañu ak ministre bi a réglé li waroon a régler léegi nag seen la ñuy dem toogal waxtaan ak ñoom ministre bi tamit xamal na leen moom daal ki na ne lépp loo xam ne mën na ko cee def ngir mbir yi jaar yoon ku nekk gis ki sa dina ko def maanaam daal du yeble ba pare bàyyi noonu di seetaan ndax itam fas yéene taxaw promoteurs yi ak seen sebe comme ci mën a doon ngir ka làmb ji mën a am ku ci nekk la nga bëgg nga am ko te kenn du gaañoo wala boog ku ci ne nga gis ci sa bu baax a baax a baax Boubacar Niang moo xëy wax lu mel ni ki noonu Bira Sène mu jiite làmb ji tamit yëgle kay bi war nañ Abdou Fall daa mel ni moom lay waxal maanaam daal da koy delloo mu xalaat la nga xam ne di la nii moom moo di wàllum caution yi la moom Bira la mu gis daal ne na lii yàgg na fi du loo xam ne nii maa ko fi indi 2019 laa ko fi fekkoon maanaam mbir la moo xam ne daal moo fi yàgg la kon xam naa ne kon loolu moo tax mu ne Pa Abdou demal nga xoolaate loolu nga xam ne ni moom moo di mbir yi leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci wane kenn koo xam ne dalal na ko Cheikh Fall nekkoon ancien membre ci CNC bi moom xëy na tey di ñëw di takkale ka nga xam ne ni moom moo de Fallaye Balde ak ka nga xam ne ni moom moo de ama waaye daal daa jàpp ne ñoom ñaar sorente moom def nañu ko lool lool lool doom jaak bàyyi de moom ci wàllum làmb jàpp na ne sore nañ lool lool lool ko ko wax moom moo di Cheikh Fall bu dee ko war la nag muy Modou Lo moom la mu gis ne ne Modou Lo daa mel ni mbër moo xam ne mbërum lébu mu fi nekkoon la moom la koy xoole maanaam daal kooku la Modou niru dëgg dëgg dëgg ci làmb ñu koy wax ama jabu mbeng dëkkoon fa nga xam ne nii moom moo doon ca yeen Cheikh Fall moo xëy tey waxtaan ak yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu làmb waxtaane fa lu yaatoo yaatu ca la nga xam ne nii moom moo di combat Ama Baldé combat Ama Baldé ak muuduloo ak yeneen i mbir leneen loo xam ne wala beneen yëglikaay boo xam ne mooy record record tam mel ni Matar ba moo fa nekk ak démb promoteur yam doon waxal maanaam daal mataar moom loo ci mën a dégg daal delloo na promoteur yi maanaam boog raisonné daal def na leen ko record moo xëy ñëw gis ko dinu ko wax leneen loo xam ne record da koy ñaaw mooy la nga xam ne moo fa am démb ndax ku ne xam na ne promoteurs yi ñoom ñoo woon presse bi ne leen daal dañoo am audience ak ministre bi te bu ñu génnee war nañoo def déclaration presse bi xëy dem toog ca buntu ba di xaar moo xam reporter la wala man ngir bu ñu génnee ñu laaj leen ñoom lu ñu doon waxtaane maanaam gendarme yi nag ne leen loolu du fi amee di leen bunduxataal loolu nag Boubacar ñaaw ñaawloon na ko lool ndax jàpp na itam presse bi moom du loolu lañ leen war a fayee ndax ñoom seen liggéey la ñuy def ak jot li nit ñi la nga xam ne nii moom moo de xibaar yi kon takk di rek presse bi tamit war na ñuy gën a xool diggante bi nuñ koy mën a gérer ba mu rafet ba kenn ku ci nekk rek la nga moom sa morom du ko jël joggi ko salfaañe ko ndax loolu bu yàggee indi xol bu jeex mu jeex su sit gi saa yu lu ne ñeme na koo wax wala mu def ko kon yàlla bu nuy yegg fu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii yëglikaay bi tey dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rek mooy sunu xarit faatu woon fan yële génn ñu doon ko wax Modou ngoom te ñu du gënoon ko xam ci turu xarañ bu Medina tey nag sunu làmb nu ko nil ca tuus ya wan ñu ko kon xarañ bu Medina nekkoon supporteru Modou Lo génne àddina fa nga xam ne nii moom moo doon ci Arabie Saoudite yàlla na ko yàlla jéggal xare ko aljana ñu koy jàll waa Mbàkke yëpp rawatina waa génération xarañ ak groupe xarañ moo ñu boole képp koo xam ne daal sax supporteru làmb nga waaye Modou tamit la mu def rafet na ndax sol naw dàllam ànd ak ña nga xam ne ñoom ñoo de ay soppeem ak ay supporteram dem ba Mbàkke ci kër yi mbokkam jaale ko loolu defe naa tamit kuy supporter mbër bëgg nga lu mel noonu bu amee nga gis ko ndax nag àddina ñaara fi am naqar ak bànneex tey day neex suba mu naqari gomis ca am na solo mu nekkoon revue des ñu daal di ñëw nag ci journal suñu làmb Babacar ci xëtam bu njëkk tey lañ fa gis rek moo di plusieurs combats régularisés au CNG hier maanaam combat yu bëri rek daal di nañ ko régler foofu démb ca CNG mu mel ni rek diggante Balla Gaye 2 Bombardier offici officialisé nañ ko pour le 31 juillet incha allah ki nga xam ne moo di Sa Thiès tamit le 26 juin Gris 2 Abdou Diouf le 4 juillet euh, ak ñaq jariñu ki nga mhm. xam ne moo di kéwal le 7 août incha allah. waaw muy loo xam ne lu am solo la yaakaar naa ne parce que tamit xam nga ah fi nekk nii moom comme làmb ji ubbi na. te itam date yi moo fi nekk ah ñu jéem a xool nan la ñuy def pour jot ci date yi. maanaam teg ko ci loo xam ne tamit ku ci nekk rek comme lu ma doon wax rek la nga. la nga moom danañ la ko jox mais alhamdulilah rabbil alamin la ñëpp parce que lii tamit mbër yi ñu ngi ko doon xaar parce que mbër moo jox tey avance dafay bëgg a xam moom ban date lay bëree parce que ci date boobu ci lay mën a compter pour mën a préparer boppam mais su fekkente ne jël na avance te xamul datam xamul kañ lay bëri du xam moom lan lay nan lay gérer ay entraînement am nan lay defe planning am ak yu mel ni kii noonu mhm. defe naa tey nag Balla Gaye 2 Bombardier comme le 31 juillet la wax mhm. ñoom dinañ mën seen planning entraînement xam léegi fu ñu koy teg da mhm. xam ne moom moo di Sa Thiès ak Moussa Ndoye le 26 juin ba tey danañ xam fu ñu koy teg Gris Abdou Diouf pour le 4 juillet mhm. noonu kéwél ñàkk jariñu tamit noonu même Ndandi Fall ak ki nga xam ne nii moom moo di daam seen tamit mhm. boobu itam yaakaar naa ne mhm. officialisé nañ ko pour mois de juin yaakaar naa ba mu ubbi leen mhm. nañ ko ci biir léegi waaw mu ngi boo xoolee mooy jiitu muy Ndandi Fall ak daam seen waaw boobu tamit kon officialisé nañ ko mu mel ni kon daal fi nekk nii moom ah ñu ngi ñaan promoteur yëpp ah, ku si nekk li nga tëgg rek mu mën a officiel ba nga am date bu baax pour mën ko tëgg pour mën ci moom nag mi ngi wéyal rek euh, combat yi nga xam ne mu ngi koy bëgg a mel ni diggante Lac Rose ak Ama Neex euh, moom itam boobu la bëgg a tegaat incha allah. waaw boobu kay daa mel ni fisale na ko sax. Mhm. waaw fisale na ko mhm. bu ñu fisale mooy ça dire que déggoon a mhm. nag ñu ngi koy ñaanal yàlla mu am ko mu réussir ko parce que li tax mooy euh, moo gét man Babacar wax dëgg yàlla xawma ko bu à les images laa koy gis di ko dégg ak yu mel ni ki noonu mosuñoo sax wax mais nit ki nag su ñëwee ci bu bokkee ci am réew di taxaw réew ma itam dafa jara jaaya jërëjëfal parce que tamit mënoon na yor ay milliards am toog biir biir États-Unis di ko dundee comme ni di invité ay nit ñuy dem ay affaire am mais gis nañ ne même buy def ay manifestation sax ay sénégalais lay jël day préféré jël ay waykat sénégalais ay feccekat fii ay mbër yóbbu leen te loolu lépp defe naa ne xaalis bi si ñoom lay dikkaat ñëwaat ci suñu réew tey ñu ñu foogoon fa lay yem mu jël xaalisam génne ay millions yu bare làmb ci bu ci ne nga tëgg ko génn xaalis def ci ba tey revanche bi nga xam ne nii taxawaloon ko lu jafe la muy mm. lagros ak amaneex defe naa mm. ko mm-hmm. defal mm-hmm. mm-hmm. réew mi te ni ma ko gisee ci ay image mu koy dundee États-Unis su ko neexoon xulle mënoon na fa toog waaw am na solo bëgg a yokku réew dëgg la bu ñoo jógee foofu nag problème yi nga xam ne amoon nañ ko muy date yi caution yi ak impact bi Covid 19 indi woon ci làmb ji ki nga xam ne moo di Matar Ba daal dina renvoyer promoteur euh, promoteur yi fële ca CNG. waaw du renvoyer ca CNG parce que loolu moo lay wan ne kon dem daal nañ waxtaan ak ñoom. Mhm. ah delloo bi ci CNG nag mooy may ñu dem waxtaan yi moom terewul moom en tant que ministre dana ci def lim ci war a def waaye lépp rek comme li may wax rek muy moom ministre ba. Mhm. CNG ba loolu moo ëpp solo mbir yi moom lu la waay mën a wax guddal jëli bi du ko jaar nañu xool li nga xam ne moo jaaru mhm. la ko commencé ministère wàcc ci CNC bi mhm. ñëw ba si promoteurs yi Sénégal gépp sax laay wax gis nga bu ñu bëggee noppalu mhm. il fallait que ñuy xool li dëppoo ak yoon mhm. ñu di ko def loolu moo ñuy dimbali mhm. tamit xool loo xam ne danañu xool nu ñu ciy waxtaane ba nga xam ne kenn du ci gaañu mais am na yoo xam ne suñ ci bëggee taxaw wala ñu bëgg ko di ko defante fu muy mujje mooy yàqu te làmb ji tey waruñoo fexe lu di koy yàq te Matar wax dëgg yàlla ak lu la waay mën a wax moom ak lu mënta xew man day miinuma ko waaye xam naa daal nit la wala boog su ma ko miinee miin miinante nañ ni parce que euh, ma nekk comme reporter te ni ñëw ci làmb mu nekk ministre de sport mm-hmm. te ku bëgg làmb la xëy na loolu la ñu miinante mm-hmm. mais à part loolu xaw ma ko bu baax a baax mm-hmm. waaye xam naa daal ku ñemee waxtaan la dafa mel ni ma ko gisee parce que gis naa bëri mu waxtaan dañ koy waxtaanee loolu dafa am solo tamit ci kilifa dëgg la ki nga xam ne nag moo di Bira Sène nekk président au CNG nee na euh, il faut que Pape Abdoulaye Fall renvoie revoie sa copie maanaam euh, waaw mu xool daal li nga xam ne amoon na fi ak yi nga xam ne ñu ngi koy dëdmal léegi waaw loolu daal li ko indi mooy xam naa ne problème caution bi parce que bi mu jibalee caution bi ci la waa ci la ñoom Abdou Fall ne ñoom loolu duñ ko fay mhm. mooy un million bi nga xam da nga ko fay joxe balaa nangam mhm. ñoom ko mhm. am combat duñ ko def loolu mu di woon coow li yaakaar na bokk na ci li daloon li taxoon dem ministre bi dalal leen Birane nag da leen di fàttali ñu dellu ci li fi newoon ci ginnaaw parce que daa jàpp ne loolu moom fi la ko fekk effectivement waaw caution boobu jamono Alioune Sarr waxoon nañ ko fi balaa Birane Sène di ñëw kon xëy na fi la ko fekk waaye tamit du tere ñu ne ko même bu fekkente ne moom da ko fee fekk nañu xool li nga xam ne moom mooy tax bi du gaañu CNG a gérer làmb ji mu jaar yoon mhm. te kenn doom problème mhm. loolu moo ëpp solo man nag waxuma ne bu kenn joxe caution waxuma ne na kenn na kenn na kenn nañ joxe caution mhm. li ma wax rek mooy nañu xool li war a am dëgg la te kenn du ci gaañu ñu def ko làmb itam du loo xam ne itam day nekk benn genre kii boo xam dañ ko yomba rek déedéet nañ ko teg ci aw yoon rek dëgg la muy bi teg li muy gérer ci aw promoteurs yi tamit mhm. kazalika naka noonu mhm. su ko defee lamb ji mën a neex mbër mën a bëree mhm. parce que mbër loolu moo leen dimbali ndax mbër li ma la bu ci jël combat ah, xam ne xamoo kañ na ki nga xam ne moo di Cheikh Fall ancien membre du CNG moom nag euh, mi ngi dikk ci diggante ki nga xam ne moo di Ama Baldé ak waajuram bu góor nga ci ñoom ñaar daal kan moo ci dàq bëre waaye mu mel nii rek euh, roy sa waajur bu góor tamit bañ naan la yaa ko dàq bëre loolu ndam la waaw loolu de bu dee moom la koy waxee moom wax dëgg ndam la parce que tamit mhm. defe naa woykat ba noon na doon sa ba doon sa baay doon sa baay ko gën defe naa ne bu doon na it doon na mhm. kon defe naa ne moom mi fekkee loolu fàllaay fekkee loolu ama mhm. bu ci waxee defe naa ne wax jee lu jar a bàyyi xel la ama nag wax dëgg yàlla mbër la boo xam ne tey fi mu yegsi ci làmb dama koy wax di ko waxaat rek dogu moo ko fi indi ak bëgg li muy def ak man ko jox ko cir lool amaa ah, Ama Baldé wax dëgg yàlla ci làmb amul benn amateuru làmb bu naan du ma ko bëgg a seetaan moo xam fecc ba moo xam lu mu cay yëngutu moo xam ca biir bërëb ba mun a xale boo xam ne tamit li ma la wax rek fulam ak faydaam mm-hmm. ak bëgg li muy def ak ak euh, fekk ngembali ci kër gi mm-hmm. mu fóotaat ko gën ko téyaat sàmm ko moo ko indi tey mu am mérite du bëre ak roi des arènes mm-hmm. muy Modou daal mu ngi ci yoonu papaam daal jokkoo njal ama am na solo bu ñu foofu nag euh, ki nga xam ne rek moo di Modou Ngom nekkoon fële ci Arabie Saoudite euh, bi ñu xëyee yéenekaay bi ñëw na ci décembre ba ndeysaan Mm-hmm. moom Modou Ngom. waaw Modou Ngom day di suñu xarit. Mm-hmm. sama xarit dafa naa ne. Mm-hmm. amateuru lamb bu ñu mujjee déggante yàggul. dugg na si kaaba gi sax di daw safa ak marwa di ma ñaanal. di ko def ab vidéo di ma ñaanal di ma ko yónnee. kon xam nga kooku deseelatu la dara. ku dem ba fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam tëdd. ca kaabatullaay ga diggante Makka ak Madina di daw safa ak marwa di la ziar di la ñaanal kon man defe naa ne tey. kii bu bu faatoo ah ñi ñàkk bëri nañu waaye man ko ñàkk laa yàlla na ko yàlla xare aljana mhm. moom Modou Ngom ñu gënoon ko xam ci turu xarañ bu Medina dëkkoon fële ca Mbàkke Bawol mhm. di jaale ñépp ñi nga xam ne nii ay soppeem lañu mhm. parce que bëri woon na ñoo xam ne ay xaritam lañu ay soppam lañ ci làmb ji te li ko waraloon mooy làmb ñu daan jëflante benn rafet rawatina groupe baax ak président Massamba Dieye génération xarañ ñoom ñëpp ak képp koo xam ne supporter nga ndax amoon nag relation ku lu kuy supporter moo xam supporteru Balla Gaye la bu Ama bu ba Tafatine bu Boy Niang ak supporter bu mën a doon bu Lac de Guiers ñëpp parce groupe baax noonu la composé woo mhm. kon yàlla na ko yàlla xare aljana moom Modou Ngom aussi euh, aussitôt tamit di rafetlu sast bi ci Modou Lo def mhm. parce sol na dàllam dem ba seen kër mhm. yaa ngi dégg samedi passé. ba kër euh, way ba kër ba kër ay way juram. Mhm. dem ba Mbàkke ay kër way juram. Mhm. jaale ji ko ànd ak waa génération xarañ ak ay sécurité ak ay soppeem. Mhm. loolu tamit nekk na loo xam ne muud wax dëgg yàlla. maa ngi leen jëree parce que sas boobu rafet na trop parce que tamit supporter dafa metti kii si ki lay supporter di daj ci yow ay coono te kii tey exemple bi muy na Sénégal. su Modou Lô doon bëree billet bi di jar vingt cinq mille. dana jaral na ko mu jënd ko. te set waxi lu a doon loolu ngir lan ngir soutenir moom kon defe naa tey yàlla indee dogal bu metti bi mu sol dàllam dem këram kon mu tamit waree fam mhm. la def kon delloo na mat su ci ndaa la mhm. loolu tamit ñu ngi ci lancé appel mbër mu mu ci mën a doon wala képp ku ci yëngutu ci dara say supporter wala say soppe wala say fans de leen bàyyi xel ndax dañuy sonn ci yow di werante ci yow te doo ko fekke te doo ko yëg mhm. waaw am na solo yooyu la xibaar euh, suñu làmb ñoo ko fësaloon tey bu ñu jógee foofu nañu dem ci record waaye mu mel ni rek lañ fekkoon fi fekkaat ki nga xam ne moo di euh, Matar Ba daal di woon euh, recevoir CNG ak yenn ci promoteurs foofu ca ministère démb waaw mu mel ni loo ci waaw loo ci mën a dégg daal looloo fi amoon démb muy loo xam ne ah démb bi mu amee tamit bon mhm. xëy na liñ ci tiré comme ay leçons buñ ci comme jóge nañ ci mhm. dinañ xool li tax ndax li taxoon ñu doon coow mhm. am naa yàqi ne dana faju parce que tamit problème ma taxoon ñu daje mhm. problème boobu nag ñu ko fexe décanté pour jéggi ko pour mën a dem si leneen quoi mhm. pour lamb ji a avancé am na solo xibaare jaar ndar képp nga tàggatoo waaw li may tàggatoo daal mooy euh, loolu Abou Ndour bind doon ci suuf. waaw waaw c'est vrai c'est vrai maa ngi doon fàtte bii sax. Euh, parce que presse bi démb bañ demee tamit dañoo amoon ay jafe-jafe dafa mel nii. waaw presse bi moom a wax parce que ministère saa yu ñu xëyee ñu nga ci seen liggéey mhm. presse bi ne ci seen liggéey mhm. mais saa yoo gisee presse bi ñëw ministère ça veut dire que am na xibaar yu ñu leen yëgal mu war fa wàcc ñu woo mhm. ñu war fa ñëw mais amuñu jotu di sol seen daal di wër ay ministère parce que ku ne da am looy liggéey ci réew mi boo xëyee kon defe naa bu ñëwee ba foofu waxuma leen parce que bu fekkente ne ministre bi day recevoir promoteur yi si bureau mhm. loolu kenn du ko jël mhm. loolu c'est euh, maanaam mhm. public voilà loolu c'est privé quoi mais nag suñu génnee la fa noonu presque suñu génnee ci seen daje boobu euh, promoteurs yi am nañ seen porte parole am nañ seen président tànn kenn ne ko waxal ci li ñu fa jëlee ak ñu jëm presse loolu mu leen fa yóbbu woon mais pas question ñëw foofu di taxawal di def ay affaire non non non parce que loolu taxu leen parce que ku ci ne da am foo jóge bàyyi njaboot ñu di la fay weer yaa ngi dégg ngay taxale yore njaboot kon li may wax mooy que ne nañu respecté wante mm-hmm. yaa ngi dégg muy takk der yi parce que ñu ak takk der yi on est des frères mm-hmm. nañu joxante cër mm-hmm. loolu moo am solo Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar mais loolu nag li koy dëggal mooy ay jëf moo koy dëggal ak ay acte mais du ay waxi kese nii nii si nelaw mm-hmm. nañ koy jëf nii la war a jox presse cër quoi parce que presse bi moom ku leen lu leen waay wax loo bëgg wax di dem ci ñoom ñu siiwal ko ndax boo demul du mm-hmm. sotti mm-hmm. mënuñoo dem sans ñoom mënuñoo ñoom it sans ñun parce que Sénégal noonu la tëddee presse dafa am lu muy liggéey essayé déglu ma lay wax dawal oto bi am lu muy def apprenti bi noonu mécanicien bi tôlier bi ku ne ci réew mi am nga looy doxal mhm. tey ñun ñi buñ ñu filmawul du ñu feeñ dëgg la mais buñ ñu filmé kenn monté wu ko kenn du ko seetaan dëgg la kon ku ne am nga rôle booy suy mhm. mais kon ku ci nekk nañ la respecté respecté la ngay def mhm. jox la cër yaa ngi dégg loolu moo gën buñ xutaalante bi yooyu amul benn sens te comme li ma la wax rek euh, jalaari xulóor xam xam nga jaan jaan waa xam naa ko am na jaan ju ñuy wax xulóor xam nga du màtte waa bari na ay xam nga xulóor am na ñu ko xam du màtte de da ngay ne sa néeg sax mu ne ci néeg bi du màtt kenn waaye bés boo ko jàppee di ko sësal di ko sësal di ko tooñ di ko provoqué bi mhm. moo da lay màtt mhm. loolu nag laay euh, euh, na euh, presse bi dinañu amal ndaje incha allah le 3 mai lieu bi nag laa fàtte mais xam naa su ma ko xoolaatee suba dinaa ko jàllale amul benn problème incha nañu amal ndaje pour xeex li daal parce que tamit mënu mënuñoo dem sans yéen waaye nitam mënu leen dem sans ñun ñun suñu liggéey rek la ñuy def. moo tax daal foog ñu xaw a respecté wante vraiment euh, ku nekk mën a. non loolu mooy am sax la parce que presse bi moom lu la lu siiw ci àddina presse ko siiwal. Mhm. presse bi tamit seeni mbir nañu ko teg ci yoon rek mhm. man foofu laay waxee ñun itam ñun ñi presse bi mhm. nañu teg suñuy mbir ci yoon rek waaw bañ a far farloo bañ a wax lu amul bañ a neexal kii que ce soit wax li nekk te yàlla rek tax loolu rek mu am solo mais tamit mardi prochain insha allahu maître Pape Sène xam nga mooy mm-hmm. président bi sama maire commune. Mm-hmm. mooy bu ndol ngol ngol maire ndondol. ndondol damay laajte rek ndondol. ndondol voilà day def ay ndogu foofu. d'accord mardi prochain. Mm-hmm, invité naa la yow maa la invité. non dinaa ñëw. incha allah foofu ñëw ndondol kon jeex na. voilà am na solo fi la ñuy jaar di euh, ndar keppe xibaar yi nag di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen numéro jërë ngeen jëf. moom tamit musul am adversaire bu mel ni man. bu dee xee maa ko daax bu dee bëre maa ko daax.